naka naka noonee nee bu fekkee yoon yi weesu kat yemuñu woon li ma ko waxee am na ci boo xam ne daa amoon ñeenti fan jeexal am boo xam daa amoon juróom jeexal am boo xam daa amoon juróom-benn jeexal kon juróom-benn yi ci ëpp lay jàpp maanaam kon bu ko dalatee day jàpp juróom-benn fan te bàyyi ñeent ak juróom ya jàppale ci ëpp bu amee juróom-benn fan tam jeex loola baax na su fekkee am na ko te jeexul nag mu teg ñetti fan wóorloo ko ba xam dana jeexam déet ci biir ñetti fan ñi bu ci jeexee moom day sangu rek tàmbalee julee ko war ñetti fan ñi matee juróom-benn laa waxoon boo ci boole ñett mu juróom-ñeent kon juróom-ñeent fan ba bu jeexut tam moom na jàpp ne jàngoro la daal di sangu rek tàmbalee julee ko woor wa hiya moom nag fii ayaamil istidhaari ci bisi wóorlu ga xaa idun aj mbërëg lay doon maanaam ko amee àtte mbërëg lay doon nee na ñetti fan yi nga xam ne la ci yokk ci aadaam du tee mu amee àtte jigéen ju mbërëg nga xam lañ ko daa aaye lépp muy julleeg woor ak joteeg sëriñam ak yépp dañ koy aaye ba tey fa indama daan yem soxna bi ak moom ilaa tamaami xamsata xasara ba matu ba matu fukk ak juróom yow man ci ay fan fa xukumuha kon atteem xukumu taahiri mooy atteem aji laab fii taw jiixi salaati ci jëmale ko julli ba saw mi ak koor waxa damul xadaay ak ñàkk fay julli ga wa it yaani saw ji ak dikkalu bu ko soobee waaw nee na nag bu fekkee dem na ba am fukk ak juróom ñu koy xewoon léegi te taxul dara ji jeex kon moom day jàppe ni boppam ku laab mooy day jàpp ne rek lu mu yore jàngoro la di faju ba noppi na daal dem sangu tey jullee ko woor aka joteeg sëriñam bu ko soobee julli gi moom du ko fay benn yoon waaye koor gi na moom dana ko fay li waxul nag mooy koo xam ne daa ëmb ba noppi gis ko fekkee jàngoo nga aljawharu nafis àtte woon na ci àtte ku gis ko am nag ko jàng léegi ba tey ñu dégg ko faslu li ab dog la walit tuxuri ñeel na laab xalaamataani yaari màndarga waaw lu jigéen ji xàmmee ne deretam jeex na ba war a sangu tàmbalee jullee ko war am na ñaari tegtal al jufuufu benn ba moo di ak ak wow ak wow fen di mooy wow waxoo moom an tudd xila mooy bu dugalee almaratu jigéen ji xil xatan aw sagar fi farjiha ci sawukaayam fa taxarujate mu génn jaafatan mbir muy aji wow nga xam ne lay saxalay xaadir mu nekk ci moom shay'un dara mu ne dami ci deret nee na benn tegtal bi mooy jigéen ji dugal aw sagar wala wateen ci biir ab sawukaayam génn ko xool te taqul dara ci deret loolu bu ko defee tegtal la ci ne deretam jeex na muy benn tegtal bi ci des nag mooy wal xasatu ak ñooy ga al bay daaw ga aji weex wax moom boo ko xamut maawun am ndox la ab ba yaddu muy aji weex raqiixun tey aji sew sew mooy layox maanaam bañ a far yët yi moom dana dikk fii aaxiril xaydi ci mujjug mbërëg ma kama il xasati mel ni ndoxum sima tax mën naa wax yëpp moom xasatu al jiru mooy tegtalu ñaareel bi mooy bu fekkee jigéen ji dem na ba deretam di jeex amaana mu gis ndox mu weex daal mu xaw a ndoxum ciment mu génn ci sowukaay tegtal ci ne kon deretam jeex na wal xasatu nag muy ndox mu weex mi ablaxu moo gën a wér lil mu'tadati ñeel ko ko baaxoo maanaam koo xam daa aadawoo saa yu jeex day gis ndox mu weex moomu kon ndox mu weex moom moo gën a wër moo gën a wër ci moom su gisee sawukaay boobu maanaam gis ci deret ba tey say boobu nëggandiku ndox mu weex moomu ndax moo gën a wóor ci moom ndegam saa yu nekk moom la daan gis moom lay wax naa fa isaara at ndeem gis na al jufoofa fendi ga bi wow ga awalan ci njëlbeen in tazarat kon mu nekkandiku alxasata ñooy ga di aaxiril muxtaar yi ba ci mujjub muxtaar ma xanaa moom mi nga xam ne aada woon na bu deretam yi jeex rek mu gis ndox mu weex mi tey nag moom mu teel a gis sawukaay bi wow taqul deret waaye ndox mu weex mi gisagu ko kon la gën mooy mu ndox mu weex ma te bañ a sangu fi saasa waaye nag li mu wax bu ko fàtte mooy ba mu ca mujj wa ba ca mujj ma maanaam su demee ba waxtu julli wa bëgg a jeex ca muxtaar ma te gisul ndox mu weex mi itam say ba mu doyloo rek gis nga mu gis jeex bu deret ci bopp maanaam gis nga mu gis wow ba bu ko defee sangu te julli waxtu wa bala mu ko raw dañu bañ rek mu ne ndox mu weex mi laa doon néggandiku mu bañ a julli waxtu wa ndekam ñaari la te gis na benn bi rek bëgg na wóor waaye gisu ko ñu daal julli rek waaye bu mu nekk nekkoon boobu nekk waxtu waa ngi bëgg a jeex wa amal mubtada atun koo xam ne tey la ko mas def daal koo xam ne tey la mas a mbërëg fala tantasiru du nëggandiku gis na aljufoofa fendi ga wala wowuk sawukaay ba awalan na ki nga xam ne moom tey tey la mas gis deret lu njëkk a gis yaar yi doyloo ko maanaam bu wax saa yoo xam ne gis na mu dugal wëteen ba sagar ci sawukaayam xool ci toq mi deret na doy loo loolu bu nekk néggandiku ndox mu weex ndax moom tey la ko mos a def man muy wax nangam mooy aadam tey wees na ko aada woon gis rek def ko defati ko waaye kii moom da moom tey la ma a gis deret bu lu mu gis njëkk a gis ci yooyaar rek baax na waxalal mar war na jigéen an tam tasira muy seet tuxraha laabam nga xinda naw mi fa na ma tëdd nelaw wa xinda salaati suuf yi ak fa jubeg suba daa jigéen balaa tëdd war naa seetlu ba xam deretam jeex naa am déet ndax ba xam timis gee war na ko am déet balaa tëdd rek na seetlu bopp ba xam ndax laab na bu laabee xam timis ak gee war na ko mu julli ko balaa tëdd ak jamono yi fajar di fenk ba def xool ba xam ndax laab na am déet ndax bu ko julli suba waree daal di sangu julli suba fekkee waru ko mu xam ne waru ko wayam naaw dana tere alxaydu mbërëk ak salaata julli wa sawma ak koor wa ak pase maanaam jigéen nag bu gisee deret jooju julli wàcc na ko te araam na mu def ko maanaam bu ko sañu ko waaw sañ te song def ko bu ko defee itam du baax te moom du ko fay sax boole ci noonu woor itam du ko def araam na def ko waaye nag moom dana ko fay dañ ñoo digal rek fay gi ci koor gi te waxuñu ne ko ci julli gi rek waaye koor gi moom da koy fay ak fase fase mooy koo xam ne soxnaam daa gis deret jooju day araam ci moom mu fase ko ci yooyu jamono faaw mu bàyyi ba mu laab ci deret jooju su ko defee sax daañu ko jàngale ci kanam su soxna tolloo di su soxnaam tolloo gis dara jooy ba nag mu dëgër bopp fase ko suñ ko mënee forcé dañ koy forcé ci mu fayli ko ba dara jooju jeex wa masal musafi ak laalub kaamil waaw bu tolloo ci gis deret jooju dañ koy aay itam laal ab kaamil daañu ko may nag muy tari la mokkaloon ci alquran ngir bañ koo fët mooy mokkal ga dañ wa du xoolal masjid ak dugg jàkka maanaam jigéen bu gisee dara jooju ba keroog muy jeex ba muy sangu dañ ko aaye dugg jàkk xam ne romb jàll ci buntu bee jàll ci bële sax du ko mën bu fekkan muy liitikaaf day bàyyi liitikaaf ji ba dara ji jeex bu fekkan muy wër kaaba itam day dagg dara jeex mu door a ñëw àggale wër bi waaye du wër kaaba wal ak laal fil ji ci pay maanaam jigéen bu gisee dara jooju day araam ci jëkkëram mu jotee moom ci sawukaay li gën mooy na ormal la tàmbalee jumbax ba ba ci bëti ya waaye wax ji gën war mooy li mu sañu rek mooy joteeg moom ci sawukaay bi waaye laal fenn ca foofu sañ na ko moo tax mu teg ci zamanal xayd ci jamonoy mbërëg ma wa ba'dahu ak ci gannaaw xam la tuxriha ci njëkk laabam nga bil ndox maanaam ba kele deret ji jeex ba mu sangoo cangaayu faratali rek bu jëkkëram joteeg moom ci sawukaay lu may nag ndox dafa ñàkk ba mujj mu am lor ci ñàkk joteeg moom ndax ñàkk mën a sangu ndax ndox dafa amut su jigéen ji mën naa tiim kam joteeg moom ci laab gam laab ca tiim rek mooy ci tiim ga mu tiim daal faslu li ab dog la an nifaasu wasin huwa moom addamu mooy deret ja alxaariju ja e jigéen min yi bàyyi ko ci sawukaay bi sababil wilaadat ci sababu jur ga xayra saidin te mbir mu du aji ëpp xalaa sittina ci juróom benn fukk yow ci ay fan nee na deret wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral mën naa mu ànd ak doom ja génnaale mën naa am itam am doom mu noppi mu tàmbalee génn mu ci mën doon dereti wasin la su ko defee moom nag lu mu yàgg-yàgg jigéen ja doo ëpp juróom-benn fukki fan mën naa gaaw loolu nag ni ki sot ni soteet benn yoon daal di jeex ni ko mbërëg di defee mën naa am itam ay fan waaye nag lu mu yàgg-yàgg doo ëpp juróom-benn fukki fan fa isa saada ëpp na xalaa sittina juróom-benn fukki yow mën ci fan fala tastazhiru kon du ca kon du ca wóorlu maanaam bu amee juróom benn fukki fan te taxul mu jeex du ca dolli dara day jàpp ne ko ndare di jàngoro rek tey jullee ko woor ak def yëpp wa xukmu damin nifaasi atteb dereti wasin atteb dereti wasin fii la nga xam ne yam naa xoo dana ko tere wa fiqtidaayihi ak ak sàkkoom alxusle ca ngaay xukmu damil xaydi kem atteb dereti mbarag rek la mutulaxan ci anam yëpp mutulaxan mbir mu luñ joyal lañ koy wax waaye mooy mboolem ci anam yëpp rek wallaahu yàlla alamu moo xam dëgg-dëgg dafa wax ne nag deret wasin moom ci li nga xam ne moom lay aaye ni ki julleeg woor ak dugg jàkkaar yooyu ak li muy laaj ci sangu maanaam bu jeexee faaw kooku sangu yépp nee na moom na nga ko waxee woon dereti mbërëg ñoo ko yem la rek loolu lépp ñoo ko bokk ñoo bokk lu ñu aaye ñoo bokk di waral cangaay itam albaabu li mooy bunt bi azaani bi aji ñaareel fi salaati ci julli waxiya moom julli ahadu arkaanil islaami mooy benn ci ponk lislaam alxamsi yu juróom allëti yi nga xam ne buniya tabaxeef na ko moom lislaam xale xaa ci ñoom nee na julli benn ponk la ci ponk lislaam yi nga xam ne juróom la te boo leen boolee ñuy ponk lislaam julli benn la ca shahaadati an seere ne di naka lay mbir moo di moo di laa ilaha amul benn buur illallah ndara yàlla wa anna muhammadan ak naka muhammad abduhu jaamam ba wa rasuluhu tey ab yonanteem wa iqaami salaati ak taxawal julli wa itaa'i zakaati ak joxe asaka wa sawmi ramadaan ak woor weeru wa xajji baytillah ak aj yàlla ba alxaraam bari ormaal li ma ka nga xam ne istataa attan na aw yoon ilayhi jëm ci moom waaw mooy yii seere ci ne yàlla rek ay buur te Muhammad yàllaa ko yónni fekk nga fas ko ci xol bi fas nga ci xol ba mooy dellu ci imaan seere ci làmmiñu bañ boole ci wàll islaam mu bokk ci sharia mu bokk ci fiq su ko defee nag taxawal julli mooy ñaareel ba natt asaka mooy ñetteel ba war weeru koon mooy ñeenteel bi aj màkka ci kum war mooy juróomeel bi wasalaatu julli azamuha mooy gën jaa màgg seen dox da shahaadateen ci gannaaw yaari seere yi man aqaamaha koo xam ne taxawal na ko faqad aqaama kon taxawal na addiina diine wa man tarakaha ku ko bàyyi itam faqad taraka kon bàyyi na addiina diine <coughs> waaw nee julli moo gën a màgg ci ponk lislaam yi gannaaw boo weesoo gëm yàlla ku fonk julli taxawal ko mel ne kon taxawal nga diine waaye ku ko bàyyi day mel ni bàyyi nga diine <coughs> wala wujjoo bi xaaj ñenn ak waram xamsatu shuruut juróomi sart lay tax julli war la juróomi sart la al islaam mooy dugg ci lislaam koo xam duggagul ci lislaam dëgg sax digal nañ ko digali waaye li fi duggul ci lislaam du ko mën a def bu ko defee itam du baax lislaam daa war a jiitu kon na di njëkk ko defee nag bu door a baax waaye bu dégg du duggul ci lislaam moom bu jullee itam du baax wal boloox aku wal boloox aku kàllafe maanaam warul ci gone dañ koy digal rek dañ ko wax léegi ci kanam waaye taxul mu war ko mu kàllaf la war wal xaq lu ak xel maanaam ànd ak sagoom fekkee dafa dof wala muy xam ba waxtu way jeex mbaa la ci des ab raak xaju ca ba tey julli ga war a ko wàcc na ko warti faaxu damil xaydi ak yëkkati ko dereti mbërëg wan nifaasi ak wasin maanaam bu dee jigéen mu ñàkk amee dereti mbërëg mbaa juj wasin ba tey ab sart la ca ndax bu amee kenn ci yooyu rek julli ga wàcc ko bu ko warta bu ko àddina araam sax mu def ko bu ko defee itam du baax waxu dóoru waxti salaati ak teew waxtu julli wa maanaam te waxtu julli wa jot ne jamono yi nga xam ne timis jotagut kon ba tey julli wérawut balaa jullee war rek waxtu wa jot wata dana war bi awal waqti njëlbeen waxtu wa mu jooban ak war mu wasaxan nga dégguñ yaatal nee na bu waxtu wi dee door a jot julli war na waaye war gu yaatu la war gu yaatu la mooy duñ la force ci nga jóg fi saasu bu neexee toog nag ba la des ci waxtu wa julli rek xaj ci boobaa nga xam ne boo julliwut mu raw la moom war na ba nag war gu xat la mooy doo sañ a bañ a jóg ndax boo jógul daal di am bàkkaar loolu ndax sañu koo génne waxtu wa faman jaxaada ko weddi wujoobaxaa waram nga aw shay'an wala dara min waajibaatihaa ci warteefam aw shay'an wala dara min arkaan lislaam yi ci ponk lislaam alxamsati yari juróom fahuwa kon moom kaafirun ab yéefar la murtadun te aji murtad la yustata bu def na ko tuubloo salaasat ayaamin ñetti fan fa in taaba tuub na kon baax na la ci bëgg a teg wa illaa ndéem tuubut xotila kon rayef ko nee na weddi ne julli war la ma ko weddi warub julli wala mu weddi warub weeru koor mbaa leen ci mbooleem ponk lislaam yi yu leer yi dañuy jàpp ne kon kooku bu fekkee julli woon tam léegi murtat na maanaam génn na ci lislaam wax lu wax ko ci génne dañ koy wax ne mu tuub may ko dele ñetti fan bu fekkee tuub nag gëm ne julli war la te di ko def baax na bu fekkee sax na ci lam saxoon nag bu ñetti fan ñi ma teere ñu rey ko wa man aqarra koo xam ne saxal na bi wujjoo bi haa ci warub julli ga wam mu bañ min fi ci ak defam an tusira kon néggandikoof ko ilaa an yëfqaa jëm ci ba des min waqtihaa ci waxtoom ak daroor yi way daroor yi miqdaaru rakxatin kem ab rakka kaamilatin bu eju mat fa in lam yusalli ndéem julliwul rek xutila kon reyef ko bi sayf ci jaasi xaddan reyu géttam maanaam koo xam ne nee na man de gëm naa ne julli war waaye nag dama taayal ba du duma julli kooku dañ koy wax ne ko julli moom takkuwu ci taayal boo bokkee ci wàllu islam war koo sàmm rek dañ koy bàyyi ba waxtu ñu taxawal ko ne ko jullil nag su nangoo julli baax na su nangul ñu koy digal di ko digal ba waxtu wi daanaka benn rakk sa xaw ci xaj yooyu jamono nag bu nag wuta julli ñu rey ko buñ ko reyee nag rey gi itam la mooy des na ko sang sàng ko jullee ko sul ko ci jullit ñi ak itam moo ñaaw rek kenn nga weesu woon weddi woon naru jullit nag buñ ko reyee ab yëfa dañu rey kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko doon waa dara wa yusalli dana jullee xaalihi ci moom xayru ahli fadli ku dul nga nganeel wa salaax ak baax nee na kii taay la julli ba ñu rey ko bu ñu sañoon waaju baax wala mbooloo mu bari du teewe ca rob ba ndax day mel na kon deful dara la gën mooy ñu woyofal rob ba ku baax bañ faa teew mbooloo bañ faa teew ko defee ñu bari moytoo def li mu def boo liggéey wayu di fanu te def ko def na ko suul fii maqaabiril muslimina ci armeel jullit ña maanaam nag dañ koy suul ci jullit ña ndax ab jullit la ak jullitam moo ñaaw rek waaye ab la wala yutma su deeful maasale xabruhu bàmmeelam maanaam bàmmeelam des ko yëkkati lu ñu yëkkatee bàmmeel ñeneen ngoo julli xam nga bàmmeel doomi aadama dañ ko yëkkati bam jëm ak jël ci kaw benn mu maase mbaa ñu def digg ba mu gën a yëkkati ko mu wax jigéenal dañ ko defal noonu moom itam ndax ab jullit la lu metti metti ab jullit la dañu bañ nga defee ne dañu bañ bàmmeel ba feeñ bu ko defee ñu sëkk rek ba suuf si maase ñu bàyyi déedéet loolu jublu ci kenn du ko yemale suuf si rek mel ne fu am pax nekkut mel ne fu nit nekkut loolu kenn du ko def dañ ko yëkkati ñuy def ñanangoo julli wala yoqtalu deefu ko rey bil faitati ci aji faat maanaam julli koo xam ne raw na mu bañ koo fay kenn du ko ci rey moom kon nangoo fay baax na ko nangutu fay waaye waaye kenn du ko jëlee waaye umaru def na digal assa bi gone bi xaa ci julli li sàpp si na fa juróom-ñaari at yonente bi nee na seeni gone bu ñu amee juróom-ñaari at na ngeen leen digal julli ay jamono bu ñu bañee itam jëriñoo dóor waaye dara bu tiree fi ku dóor ala tarki xaaj ci bàyyi julli ga darban ab dóor xayra mu bari hin boobu du aji jéggi dayo isa balaxa ndeem jot na xasru si na fukki at yonente bi dana seeni gone bu ñu amee fukki at na ngeen leen digal julli te bu ñu bañee ngeen dóor leen dóor ba nag du ëpp bay dam ab yax mbaa muy ñaawalug cër faslu li ab faslu li ab dog julli ga almafruudatu ga farataal xamsatun juróom la am julli nga xam ne farata la sañoo ko bañ a def li koy yaa ngi koy man kem sa kattan juróom julli rek la ak zuhru tisbaar wal xasru ak takkusaan wal maxribu ak timis wal xishaaw ak gee wa ak suba waaw ah, juróomi julli yi mooy julli juróom yi nga xam ne farata lañu wali kulli waahidatin ñeel na benn bu ne min xaa ci ñoom waqtaani yaari waxtu ixtiyaari yun waxtu yi ko jóg muxtaar wa daroori yun waa na julli gën nañ koo sàkkal waxtu waxtu woo xam nañ koy tudde muxtaar maanaam boo amul ngànt war nga caa julli bara jàll ak waxtu bu ñuy wooye daroori yu daroori yu nag mooy soo amee ngant julli ca du tax nga am bàkkaar fal ixtiyaari yu waxtu way ko ñu muxtaar li zuhri ñal tisbaar min zawali shamsi mu ngi tàmbalee rëccu jant li aaxiril xaamati ba ci mujj xaama maanaam waxtu wañ tànnal tisbaar mooy bu jant bi rëccee bu jant bi rëccee ñu ngi koy xàmmee ci bu xëyee suba ker yi jëm soow day wàññiku ndànk-ndànk ba yàgg mu ne tekk wàññi ko su boobaa tisbaar jot na léeg bu jant bi rëccee sa takk sa takkandeer dina des tuuti léeg léegi tam nag mu xaw a bari léeg-léeg itam yenn béréb yi sax mu jeex tàkk foofu nag fi la tàmbalee ba nga xam ne boo xoolee sa takkandeer mu gudde ne sa jëm yi bopp nit ku ne mën ngaa jàpp ne juróom-ñaari wala ñeenti xase boppam moo tolloo ko taxawaayam kon mën nga ne waxtu wa tisbaar jote soo takkandeer ba guddaatee ba tolloog sa juróom-ñaari ndëggu wala juróom wala ñeenti xasab ci yow rek su boobaa foofa la muxtaarum tisbaar yam mu ngi tàmbalee fi jant bi rëccee ba ci taxawaay boobu mat wax woo moom awal waqtil xasri mooy njalbeenu waxtu takkusaan maanaam fi nga xam ne fi la muxtaarum tisbaar yam fi la muxtaarum takkusaan moom tàmbalee wa axiruhu ak mu jëm ila sfiraari shamsi jëm na ci gelug jant muxtaaru tis muxtaaru takkusaan bu la neexee ni mu ngi yem ci bu sa bu sa takk ndeer ñaar caa sa jëmm ni ki juróom-ñaar ndëgg yi nga waxoon su demee mat fukki ndëggoom ñeent baax na bu fekkee ne ñeenti xasab yi nga waxoon dem na mat juróom-ñetti xasab ba tey noonu baax na bu neexee itam yemale ko ci gelub jant bi gelub jant bi mooy su jant bi dee bëgg a so ñu naaju weexe woon ci bëccëg bi du ko defati nga jant bi de xaw a xong daal di sóob naaju nag naaju itam xaw a xong kër yi jàppaloo su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan yam walil maxribi muxtaar la ñeel timis bi xoroo bi xursi samsi ci soxuk catul jant bi maanaam bu jant bi ci soxee bu daal timis moom jot na moom mu dayyaxun lu ñu xatal la xayru mum taddin du aju tàlli yu xaddaru def na ko nattale bi fi alihaa ci ak defam baxda taxsiilu shurootihaa ci gannaaw amal ay sartam timis daal ñu wax naan muxtaaram daa gàtt gàttaay boo xam ne bu jant bi soxee soo ci tegee ndiir soo xam ne mënees na fee laab sol fi ay yére nodd li xaam julli ñetti rakk rek timis daal nay jeex waaye li gën a yomb nag mooy nga tollale ko ci xong-xong yi des ci fi jant bi soxee woon bu demee ba raaf mooy bu xong-xong yi raafee rek timis jot na gee daal timis jeex na gee daal di jot loolu daal mu gën a neex a takk ci yow walil xisha yi muxtaar la ñeel gee min xay booba ci shafaq yi tàmbalee fàddu shafaq al ahmari gay aji xong ilaa si layli ba sulusu guddi ga al awali bi jëkk maanaa fi muxtaari timis yemoon mooy fi jant bi soxe woon tam di ay xong-xong bu xong-xong yi raafee da nga ne foofu li timis yem te dalee foofu nag foofu nag fa la gee jote moom fa la muxtaarum gee tàmbalee dana dema dem na ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bi jeex guddi gi mi ngi tàmbalee fi jant bi soxe ni ki ñu ne jant baa ngi socci 7 heures 18 bu dee ci ñun fii mu nekk su ko defee ñu ne suba mi ngi jot ci ba tey mel ne siisir kaar bu dee ci mun daan gum sori xoow danga tamit boo ko defee ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi fu mu yem rek foofu la muxtaaru ngeeyam wali suppi hmm. wali suppi ñeel na suba min tulooxil fajri tàmbalee fenku fajar as saadiqi ga eju dëggu lil isfaari ba ca set ga al axlaa gën a kawe muxtaarum suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree bu fajar xaree mooy bu leer gi tasaaroo ci la wër ci asamaan ci penku lay tàmbalee ndax jant bi bëgg a fenk rek mooy tàmbalee ak leeram di ñëw foofu nag bu leeree bu baax foofu la muxtaarum suba tàmbalee dana dama dem nag ba bët set ba nga xam ne bu nit dee ñëw bu fekkee muurul kanamam da nga daal di xàmmee ni kanam bi kanamu diw la foofu la muxtaaru yam wa daroor yu daroor yu li subhi ñeel suba ñun isfaar yi mi ngi tàmbalee ci set ga al axlaa ga gën a kawe ilaa tuloo xisansi ba fenku jant maanaam kenn ku ne fa muxtaaram yeman rek fa daroor yoom di tàmbalee xam nga da ne suba muxtaaram mi ngi yem ci bët xawee set ba bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko la dalee foofu nag kon mooy daroor yoom ba catu jant bi génn catu jant bi génnee rek daroor yoom jeex na wali zuhri ak ñeel tisbaar min awali waqtin xasri tàmbalee ci njëlbeen waxtu takkusaan al muxtaar ba duñu tànn ilaa xuroo bi xursi samsi ba ci soxub catu jant bi xam nga da nga ne woon tisbaar muxtaaram mi ngi yem ci bu fekkee ne boo nattee takk ndeer mu toll ne boroom la dale foofu nag ba jant bi so lépp daroor yoom la wala xas riñeel takkusaan mel isfilaay tàmbalee ci gel ga ilaa ba ci waxtu soxla da nga ne woon takkusaan mu ngi tàmbalee fa tisbaar yemoon ci muxtaar yem ci bu jant bi dee bëgg a so ba kër yi jàppaloo suuf si xaw a xong la dale foofu nag ba jant bi so ba tey mooy daroor yoom walil maxribi ñeel timis ñooy faraax yi tàmbalee ci noppi min xaa ci moom ilaa toolul fajri ba fenku fajar da nga ne woon timis muxtaaram mu ngi yem ci xong-xong yi des ci soow bi jant bi sooyee bu raafee da nga ne woon foofu la muxtaar mu yem da dalee foofu nag ba jant ba fajar fenk da dalee foofu fajar ci dara yow la bokk walil xichaa yi ñeel gee min aaxiri sulusi ci mujjug sulusu guddi al awali ba jëkk ilaa ba fenku fajar kon ñu waxoon ne gee muxtaaram mi ci tàmbalee xonk-xonk yi ci sow bi raafee fi jant bi soxee woon dem a ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bu njëkk ba war a jeex xaaj bu njëkk fa muy am rek foofu la daro yu gee tàmbalee nag ba fajar fenk tam bii la man ak xara julli ga ila waqti ba ci waxtu wa ak daroor yi way daroor yi man xëy bi xondarin ci lu dul ngànt ci lu ngànt asima kon bàkkaaru na nee na koo xam ne daa yeexe waxtu wa mën na ko julli ca moxtaar ma mu yeexe koo julli nag ba daroor yu dugg ci coobareem dong dana am bakkaar bu rëy rëy bu fekkee ngant tax na mu yeexe ko nag moom du ci am bàkkaar mu wax nag kon ngant yi wal xudru ngant la alxaydu mooy mbërëk maanaam jigéen bu fekkee dafa amee woon mbërëk moomu ci jamonoy moxtaar ba daroor yi jotee nag mu laab daal di julli ca daroor yi kon du am bàkkaar ca loola wan nifaas ak wasin wasin yu moog borom yi wax ñoo bokk àtte bu fekkee jigéen dafa laab ci deret wasin ci biir daroor yi wa daal di cay julli ba tey du am bàkkaar wal kufur ak kéefar koo xam ne jamonoy moxtaar ma daa fekkoon duggutoon ci lislaam ci jamonoy daroor yi nag mu dugg ci lislaam daal julli ca daroor yi ba tey kooku du am bàkkaar wasiba ak ndaw koo xam ne ci jamonoy muxtaar ma daa tollu woon ci ak ndaw bi jàpp bi nag mu door a gis ak mageem ak kàllafeem mu daldi julli ca yi moom it kon ak ndox gi ñooyemoo xam ne ci jamonoy muxtaar ma da caa nekkoon ba daroor yi ñëwee nag ndof ga wala xam nga dañ nag mu daal julli ci daroor yi ba tey du ci am bàkkaar wan naw ak nelaw wan nisiyaanu ak fàtte nelaw ak fàtte yëpp yàllaa koy def nit yàllaa koy teg nit kon bu fekkee dafa nelaw ca moxtaar mu yeewoo ca daroor yi wala mu fàtte woon julli gi ca moxtaar ma ba daroor yi dikk comme ci man doon rek bu jullee ci daroor yi du tax mu am bàkkaar daañu leeral nag ne lu mel ne mbërëg me wala wasin wala ndox bi ni ki tàggoo sagoo moom jamono yu ngànt la dañee dañuy seet la des ci waxtu wa su fekkee mën na caa laab am ca baraka ma door ko war waaye bu fekkee ne laab ci am ca baraka xaju ci sax kon julli gi da koy wàcc benn yoon dañu ko leeral ci téere yi ci des faslun li ab dog la yajibu dana war xalal mukallaf ci mukallaf xadaa uma fay la nga xam ne faataxoo faat na ko mina salawaati ci ay julli al mafruudati yajuñu farataal murattabatan mbir mu ñu lu ñu toftale fi ay waqtin ci mu ci waxtu kaana la nekk nee na boo amee barub julli te di mu kàllaf bu dee gone moom julli waru ko woon waaye bu dee mu kàllaf nga xam ne julli war na ko saa yu ko julli rawee rek dafa war a taxaw temm ci fay ko waxtu fay gana moom sañ na ko ci waxtu wu ne maanaam amul leen waxtu ñu aaye ko ca fay bor waaye jibu dana war tartiibul xaadiratayni toftale yaari julli yooyu aji teew al mushtarikatayn yi aji bokkaale fil waqti ci waxtu nee na yaari julli yoo xam dañoo bokkaale waxtu yooyu nag mooy tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee am nañu bokkaale ci waxtu goo xam ne xëy na ñu leeral la ko ci téere yi ci kanam yaar yi ci nekk nag su fekkee julli yoo ga jiitu bëgg a julli bu ñaareel ga te ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa kon bu ñaareel ga boo ko jiitalee du baax boo jullee bu njëkk da nga koy baamuwaat moom bu ñaareel gi ci misaal jamono yi rek bu fekkoon ne takkusaan jot na te fekk julli goo woon tisbaar soo ko teyee daal julli takkusaan rek te fekk julli goo woon tisbaar kon takkusaan moomu du baax xam ne boo jullee tisbaar ba àggal faaw da ngay baamuwaat takkusaan bu doon timis ak gee itam gee jot wóor la ne yow julli woo woon timis te ñoom yëpp añ nañ ci waxtu ba tey ndax yaa nga seen waxtu rek su boobaa nga jekki jékki tey ko julli gee gee googu du baax boo jullee timis ba àggal faaw dangay baamuwaat géega su fekkee dem nañ ba nga xam ne xajatuñ ci waxtu wa ñoom ñaar ñëpp nag mbaa day timis ak gee yoo xam da nga koy fay rek ci beneen bis waaye du bopp tey wala day tisbaar takkusaan goo xam du bopp tey da nga koy fay rek yooyu moom toftale ga sax war na waaye nag boo ko deful bàkkaar rek ngay am waaye ñàkk gaa toftale moom du ko tee wér ni mooy ci des ñu daal yemoo dana ko wax ci kanam tuuti fa in xaalafa ndem jiyoo naag loolu ahada mu baamu ak saaniya te julli ñaareel ga abadan faw mooy li ma doon wax léegi mooy saa njëkkee julli takkusaan daf yaa ko yaa ko tey waaye xam nga ne julli woon tisbaar te yaa ngi seen waxtu wala wala loolu daal la diggante timis ak gee faaw rek bu ñaareel googu bu dee takkusaan boo jullee tisbaar ba àggal da nga koy baamuwaat bu dee gee itam boo jullee timis ba àggal da nga koy baamuwaat xanaa nga koo jiital te war a koo ne jiital ndax lu war la wa yajibu na war taqdimul fawaiti jiital julli ya faat xalal xaadirati ca aji teew ja nee na bu amee julli goo xam ne laa raw am goo xam ne yaa ngi ci waxtoom kon day war nga julli googee nga xam ni moo la raw door a julli gi nga xam ne moom nga toll ci waxtoom wa in xaraja ak doonte namm naa génn waqtul xaadirati waxtu julli ko teew gi doonte xam nga ne sax boo fi dee julli googee la raw giitam fa raw la moom it waxtoom jàll it du tee nga war a jiital googa teg ci gii mu ngi mel ne tisbaar jot te fekk julli woon suba ngir nga bañ am bàkkaar da nga njëkk a julli suba ba àggal door julli tisbaar waaye ndegam amuñu bokkaale ci waxtu na moom boo ko tayee njëkk a julli tisbaar itam door a julli suba du tee suba ga baax du tee itam tisbaar gi baax waaw waaye nag da am bàkkaar ci ñàkkee tegale ba tey bu timis jotoon te mu wóor leen ne julliwoo takkusaan su boobaa da a njëkk a julli takkusaan njëkk door a julli timis soo ko tayee ba noppi na njëkk a julli timis door a julli takkusaan tam da am bàkkaar ci yeexe ci ñàkkee toftal rek waaye du tee moom mu wér moo ko xaajale yaar ya nga weesoo woon yaar bu ñu xajee ci waxtu boo leen tegale woon war a tegaloo rek ga nga jiital te a jiitu moom baax yi des na moom nga am ci ñàkkee tegale rek waaye du tee mu wér maalam tasit li fekk ëpp ñu xalaa xam si salawaat ci juróomi julli li fekk li raw ci ay julli ëpp na juróom ndax li tax mooy juróom benn moom ñëpp maase na ci ne bari na ñeent jëm suuf ñëpp maase ci ne bariwut dafa néew juróom na ci lañu wute moom lay wax naa fa insaadat ndem ëpp nañu xale xaa ci juróom xalaa ahadil qawlayni ci benn ci yaari wax ya al mashhurayn ya ñu siiwal aw xalal arbax yi wala mu ëpp yent xalal mashhuri ja ñu siiwal ci wax ja ñu siiwal al axari ja ca des qaddimat kon jiital yëf alxaadiratu julli ga teew ida daaxa ndem xat na waxtuha waxtoom maanaam mën ngaa dogu ne bu fekkee la la nga amee ci bari julli mat na juróom benn jëm kaw moom am julli goo xam ne yaa ngi nekk ci waxtoom dangay seet bu fekkee waxtu yaatu na ba nga xam ne mën ngaa fay juróom benn yooyu mbaa la ko ëpp te du tax gi raw la yooyu jamono kon dangay nekk ci sa coobare lu ci neex def bu la neexee njëkk fay yooyu nga xam ne ñoo la raw loolu jub julli ndax nee nga gii du xañ na fi bu la neexee itam njëkk a julli gi teew bu nag doo a fay di ci gannaaw